voilà euh, toujours ci Sonko mu nekk ci grève de la fin ñu interne ko à l'hôpital principal mais mm. aussi tamit mu doon benn patient bi nga xam ne ni il coûte cher à l'État du Sénégal selon les révélations de no confrères du quotidien presque deux cent mille francs par jour sa mm. euh, ça cher ah franchement man loolu du information ci man quoi mm-hmm. deux par jour tey ji biram Biram comment on appelle encore Bassirou Diomaye Faye qui est un inspecteur des impôts yow jàppoo ni teg loxo bi nga ko teg loxo ak nekk ka mu nekk fële loolu du jural pertement état du Sénégal yow jàppoo ni jeunes yi nga xamante ne bii tey bu ñu leen taxawaloon ci kanamu yoon àtte leen ñu delluwaat ci seeni activité loolu état bi du ci am lu mu ci tonowu de par leurs activités de par euh, les impôts yi nga xamante ne bii état war na ko jël ci seen activité et cetera et cetera moi je pense que nii ni uni euh, unidirectionnel de dire que ça coûte à la cher à l'état du Sénégal ki ko bind il a voulu faire du buzz ki ko bind pour man il a voulu naturellement cristalliser une opinion ou bien une partie de l'opinion mais dafa mel ni les gens lui ont retourné Euh, un bout de phrase du genre on s'en fiche quoi de ça quoi franchement ay cent cinquante mille francs par jour euh, euh, moi je pense que ni li nga xamante ne bii auditeur corps de contrôle yi ñu ngi koy def seen liggéey te du am benn suite judiciaire moi je pense que ni ñi nga xamante ne bii ils sont dans une dynamique véritablement d'accaparement du foncier xoolal ce qui se passe à Mbey xoolal ce qui se passe véritablement euh, à Bambilor, c'est le président lui-même, dans la conscience de sa solennité, qui dit que 98% des litiges inil, euh, c'est du domaine foncier. Man, je pense que ni, euh, suñu littoral bi nga xamante ne quatre-vingt pour cent su ma juumalee de notre économie foofu lay jógee et cetera et cetera moi je pense que débat yooyu la ñu war a mën a poser moi je pense que ni xaalis bi nga xam ne day dugg ci réew mi te sénégalais yi duñ ci gis seen bopp comment des gens peuvent mobiliser presque 10 millions pour aller à l'aventure se faire euh, dans le ventre atlantique qui se transforme même en cimetière au conséquences je veux dire chaotiques aux conséquences euh, désastreuses débat yooyu la ñu war a mën a poser quoi mais 150 000 francs yi nañ ñu wax d'abord lan moo indi OS <laughs> nekk foofu ak ba ñuy naan xayma cent cinquante mille ak moom kan moo ko wax cent cinquante mille euh, moi je pense que ni daal débat boobu après on va me poser non il est journaliste il a des sources et cetera mais débat boobu moom ma je pense que yow rek yaa ko relevé quoi Sénégalais yi man gisuma kenn ku ci toog di ci wax donc loolu moom franchement ça ne même pas d'être commandé parce que kooku ñëpp xam nañ fan la far donc euh, loolu mooy dëgg quoi franchement mm-hmm. voilà euh, situation toujours Ousmane Sonko bi nga xam ne ni toujours ses partisans jàpp nañ ne il est toujours candidat à la présidentielle ces fiches de parrainage yu ñu waroon retirer à la direction générale des élections hmm. Ayib Daffé dem fa direction générale des élections ubbi lu ko buntam hmm. donc euh, taxawaay boobu aussi de la part de la DGE hmm. noo ko gisee waaw mais DGE moom de toute façon li mu def ñi jàng droit nee nañ carrément li mu def dafa defuwul am na benn tribune boo xam ne ñi agrégé en droit ñoo ko bind franchement rafetlu wu ñu taxawaayu DGE jarul nekk fii di agrégé c'est-à-dire dafa am loo xamante ne xel moo koy nangu ay cër nangu ko ñu doog ko mën a jëfe innal azana la majja chaque jour moo ko maanaam nopp dafay wàccu yow mënuloo taxaw fii ñoom bi ñuy wax seen quinquennat ñii di tuddee ko troisième mandat fu ñu waxee ñu ne non laissez le conseil constitutionnel wala attendons le verdict ou bien la sentence du conseil constitutionnel tey mu am benn décision boo xamante ne bii ñoom fooguñu ko woon te le juge si fay li mu def dafa jëfandikoo fii lu am rin ci wàllu arab ci wàllu grammaire arab Euh, un document de quinze à seize pages mu ne carrément nañu jëlaat Ousmane Sonko seen radiation boobu ngeen jël ko sànni ko ca xaj te ngeen dugalaat ko moom fi nga xamante ne bii fala ay nawleemu sénégalais mu nekk loolu leen wax ordonnons ba pare mu ne leen fépp foo xamante ni bii ay services centraux ministère de l'intérieur dont la DG li ma gëm en tête parce que moo yor affaire élection on parle de la loi yaa ngi dégg ak yeneen service centraux yi donc euh, moo tax le juge il a informé le préfet de Ziguinchor et cetera et cetera xam nga ñoom li li lay wan ni ñoom franchement dañoo dugg ci mbir mi ba pare. amuñu le plus petit élément de droit pour mën a dérouler yow noo mën a comprendre ku ñu rajee koo xamante ne bii wax dëgg neex yàlla amul procédure amul dara dañoo xëy xëy rek génn benn document ne rajee nañ ko. te boo xoolee ay journalistes ñoo taxaw di ko wax quoi franchement après léegi ngeen di wër Kajoor Bawol tund jeewal dem fu nekk ne di ngeen di wër Ousmane Sonko quoi c'est-à-dire ça c'est quoi ça ça c'est quoi non dem nañ fii fekk ñu ko fa dem nañ fii après plateau depuis quand Ousmane Sonko habite à côté de Macky Sall depuis quand ça c'est quoi après ñuy taxaw fii naan ay droit léegi et cetera après nga dégg agent judiciaire de l'État bi ne non de toute façon état bi décision bii du ko def loolu c'est un aveu de de de d'emprise de l'exécutif sur le judiciaire c'est ça la vérité moom daal loo ci mën a jàng daal mooy Sénégal moom ni mu delloo gannaaw guddi yi ñu toll nii noo wax dëgg neex yàlla bu fi kenn taxaw nag naan non vous am na yu fi daan am yu mel nii c'est-à-dire xew nii musul am dañuy baliser un boulevard pour une seule personne personne boobu presque mënul sax gagner bureau de vote wala bu mu mënee gagné bureau de vote mënul gagné centre de vote ñu bloqué ñëpp kooku mooy déroulé mais loolu loolu en réalité mais loolu ça c'est quoi c'est-à-dire loolu kenn Amadou dinañ ñëw non non loolu jarul sax tudd ay tur mais cest à xew nii cest à xew en fait saful suukal saful xorom en fait dafa dul dafa dul en fait du sax dimbali intellectuels yi nga xamante ne ils essaient de réfléchir ils essaient de comprendre pour réfléchir mhm. parce que imaginez une élection unidirectionnelle quoi c'est-à-dire élection boo xam ne amul challenger amul dara quoi amul dara dara. Hmm. amul dara dinañ ci ñëw ñu des ci DG parce que DG aussi fu mu teg ne du joxe fiche de parrainage yi dégg nga ko mu ne amagul décision définitive ci ci ci mbir moomu. loolu xel mën na koo war a nangu wóor na yàlla ñun dañoo waroon am fulla journaliste yi gars yi franchement seen yi ñuy jéem a gëmloo ñu bañ sax di ci commentaire quoi parce que lu tol ni DG. ki ko jiite lu mu bon bon am na maîtrise en droit ci li ma jàpp lu mu bon bon lu mu bon bon war na def vingt trois ans au niveau de la direction des élections bi Cheikh Gueye di nekk euh, ministre moom il travaillait sous sa houlette. Cheikh Gueye temps Ablaye yaa ngi dégg. Mhm. mais comment il peuvent sortir un communiqué boo xam ne amul visa c'est-à-dire amul benn article électoral bu ñu visé amul. après ñun ñu bëgg a toog fii di ci commentaire non sérieusement mhm. man semaine bi dama doon wax ni sax du ma génn wax ci en fait du ma wax quoi parce que y a pas matière à débattre lu toll di direction générale des élections général des élections mënuñu génn communiqué bu am visa mais les avocats de Ousmane ko dañoo génne ay visa dañoo visé ay article visé ay loi électorale ñoom ñu taxaw bi di génne loo xamante ne bii amul benn sukkandiku non misaan yow boo jàppee ni DG li mu def loolu yoon la man jàpp ma loolu te sénégalais yi sérieux laa wax yi sérieux xam ne dinañ taxaw dinañ yàlla euh, euh, dinañ taxaw ci suñu borom xam nañ ne li DG def ca dëgg-dëgg dëppool ak yoon quoi ku mu neex nag nga far yaa ngi dégg mm-hmm. nga euh, xalaate ni DG di xalaate mais man xalaate wu ma noonu dañoo war a jël OS réintégré ko léegi nag xaar lan la pour waa ak association bi di joxe leneen lu dul loolu wax dëgg neex yàlla non jaay doole kese la quoi franchement. Hmm. maintenant ñu wax ci pragmatisme politique. Hmm. parce que Ousmane Sonko est toujours candidat. donc ces partisans loolu la ñu wax am na yeneen partisans yi jël seen fiche de parrainage Guy Marius Sagna Abbas Fall El Malick ak ñeneen ñi Bassirou Diomaye fay ak yi demee noonu mais ba léegi ñooñu wàcceguñ la sur le terrain di ut. parrainage parce que jàpp nañ ne Ousmane Sonko c'est le seul candidat pour le moment mais ah ci yoon bii ñu jël bu ñu nee Ousmane Sonko xañ nañ ko mu doon candidat aussi tamit du la bett du ma bett du bett kenn est-ce que ci ban taxawaay le cas échéant le fu war a taxawee ngir euh, peser ci élection présidentielle bu ñu dëgmal. non au-delà de Pastef bépp Sénégalais boo xam ne da ngaa gëm changement. wala ex Pastef comme yaa ngi dégg da gëm ni li fi nekk dafa war a jóge mhm. da nga war a mobiliser wu éviter la démobilisation bul toj bul yàq xaar jour élection yi yaa ngi dégg. Mhm. nga def sa choix man de jàpp naa ni. Mhm. ak ni ko opinion bi di exprimer moo xam ci biir néeg yi la moo xam ci salon yi moo xam ci marché yi. ak yeneen espace. li ma gëm ñi pare pour changement suñu voté à quinze pour cent ñooñu ñii dañ fiy jógee xaw ma nag ñu yem ci wax kese bu dee dañ ko boole jëf bu ñu voté à cent pour cent moom kenn dootu ko waxati parce que sëriñ bi nit ñi niñ leen meree sax dafa ëpp wax ma kan moo sañ a génn jam ñaajo di wuti parrainage wax ma ko rek ci réew mi te du yoon. ci waa APR waa Benno. waaye noonu ci candidat yi laa waa. mais candidat déclaré kan moo ci sañ a génn ne da ngay uti parrainage amul. ñu ngi ci terrain bi de. terrain yow fii ku génn ñun la arrêté amoo autorisation de circuler loolu mooy waxu lan. waaw xam moo dal Khalifa Sall. non mais ça c' est quoi c' à dire on fait abstraction de l' article lan mooy autorisation de circuler ça c' est quoi ça. ça man dama comprendre quoi man cette méthode là je ne pas à quoi ça rime man je ne pas dañu bëgg dëkk bi yëngatu après ñu repousser élection yi. man sax man à ce rythme là je demande est-ce que y aura une élection au Sénégal mais bu dee en fait nii lañ ko bëgg a doxalee non kon ingénierie électoral lañu bëgg a kon ils ont déjà les résultats parce que moom candidat wu bennoo moom ca dëgg dëgg dëgg mënta gagner Sénégal non sérieusement mënul gagner Sénégal quoi quelqu'un qui peine difficilement à avoir une notoriété électoral politique aux Parcelles Assainies non non non non au niveau national bu ma bu ñu ma taxawee naan ma ay moo gagné set non quand même nañ bàyyi en 2010 yow quelqu'un qui investit dans Benno mhm. Benno sax nangu luñ ko bu fi may xamee Abdoulaye Daouda Diallo nangu koo tudd <laughs> wax na ba daaneel tudd ko moom moo rafetal après génn tudd ko ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo noppi rek parce que voilà dañuy bañ Macky Sall yëngal seen dossier non sëñ bi gars affaire yi daal li doon gën mooy ñu bàyyi kenn ku nekk boo amee sañ-sañu ut parrainage nga ut ko bu la ko sénégalais yi joxee nga dem compétir bu la ko ñu la ko joxul nga toog jàpp sa ñàmbur mais à ce rythme là non on fait pas de euh, direction quoi li ñuy def du sax en fait nekkul sax parce que sélection ci boppam sax mm-hmm. lii du sax sélection parce que sélection sax di nga jël benn ñaar ñett mm-hmm. mais mënoo jël benn kese kese kese kese ñi ci des ñëpp tous les blocs ñëpp moo tax bu ñu la nee Karim Wade du ñëw bu mu la bett parce que election ngay bokk lii du élection y a même d'élection bu dee lii la moom jarul ñuy imprimer beneen bulletin nañu imprimer benn bulletin def comme euh, le président euh, Loukachenko def comme Poutine et cetera ñëw dañoo gagné à quatre-vingt-dix pour cent man bu boobaa du ma metti parce que da xam ne lii prémices yi posé woon nañ ko ba pare. léegi nag après nag ñu xool boo xam dans cinquante ans nan la Sénégal lu mujj mais de toute façon moom lii moom lii moom jëmul kër. c'est pas des élections ce n'est rien du tout. ce n'est rien d'autre que voilà un système qui essaie de se de de de de de, de se muter à travers sa tête mais avec les mêmes hommes ça n'a pas de sens. kon da gëm ne lu ñu jëm ni narul sax nuru élection présidentielle pourtant y a les